dal leen ak jàmm ñu dellu si waat ci xibaaru sëriñ daara bi yoon tegoon loxo ngir jéng gum doon jéng yenn ci ndongo daara yi mu doon jàngal alxuraan fan yi ñu weesu ci njañ ci la ay takk der yu kokki tegoon loxo boobule sëriñ daara boole ko ak ay way juwur ndongo daara yi ndax ne ñu ñoom itam ñoo joxe woon ndigal la sëriñ daara boobu ngir mu jéng seeni doom ginnaaw bi ñu ko jàppee ba léegi ay naataangoom noppiwuñ ci jàppale sëriñ daara boobu ngir mu delluwaat ca liggéeyam gis-gisu naataangoom yooyu ci mbir mile moo di jàpp gu ñu jàpp Cheikhouna Gaye du dëgg du yoon te nguur gi wala yoon sax moom tegu ko fenn fudul rekk ne day xeex diine bu ñu sukkandikoo ci seen kàddu jëng gu ñuy jëng yenn ci ndongo daara yi du lu leen di lor waaye lu leen di jëriñ la ginnaaw bi ñu leen jàppee ba léegi tey jii nii ci àllarba ji ci la yoon fas yéene daal di leen atte loolu waral tey jii ci suba lim bu takku ci ay doomu aadama ñëw nañ ca buntab tribunal bu Louga bi ñu leen war a atte ngir soutenir ñi ñu jàpp ci mbir mi ay doomu aadama yu bari jóge ko ci ay gox yu fasantikoo ngir wane seen ñàkk ànd ci ni yoon doxale ak jàppale sëriñ daara boobu di wuyoo ci turu Cheikhouna Gaye ngir mu delluwaate ca la mu nekkoon def kuréel bu rëy di yuuxu ci kaw di wax nañu libéré sëriñ daara boobu ñu jàpp pour ñoom sëriñ daara boobu di wuyoo ci turu Cheikhouna Gaye ñu gën koo xam ci sëriñ Xaadim jàpp nañ ne ab sëriñ daara la boo xamante ne oustaz bu ñu ràññee la ci mbir mi te liggéey na liggéey bu am solo ci wàllum njàngale alxuraan ba tax li ñu bëgg mooy ñu libéré ko ci nu mu gën a gaawee bëgg-bëgg boobu moo waraloon association des maîtres coraniques bu Sénégal kuréel gi boole mool mboolem njàngalekatu alquran defoon nañ ab délégation dem fële ca Touba seete xalifa général des Mourides di Serigne Mountakha Mbacké ngir yëgal ko xew-xew bi ak xamal ko taxawaay yi nga xamante ne moom la ci yoon am ba ñu yeggee wax nañ ko seen tiis ak seen njàqare ci jàpp gi ñu jàpp seen nataangoo boobu xamal ko itam ne ko ci wàllum jëng bi jox nañ ko seen bopp que moom sëriñ bi su leen waxee ne leen buñ jëng di jëng dootul am am waaye su leen waxee ne ne ñun continuer ca lañ nekkoon danañ ca continuer ndax njëriñ lañ ca gis naka noonu xalif général des mourides de Serigne Mountakha Mbacké jël na fa kàddu xamal leen ne mbir mi yëg na ko te amoon na ci taxawaay bu mu ci tàmbali woon moom kilifa gi di xam la ne am na lu mu ci jot a def ak lu mu ci jot a wax li mu doon néeg rek mooy daal ñu àtte ngir ba mu xool naka la ñu defalee muy xamle ci ay kàddoom ne bu fekkee ne dañoo àtte def la leen neex ñoom yoon moom itam dina jóg daal di woo mbooleem kilifa diine yu nekk ci réew mi ndax jàpp na ne nekk gi ñu nekk ci réewum jullit war na mën a tax ñu war a taxaw am fi ay sañsañ ci wàllu diine lii lee tax na ba juge bi war a àtte mbir mi tey kenn ñeewu ko mbala sax kenn bëggul a toog place ngir mbir mi ni mu demee ndax daf leen di àtte tëj leen ndax daf leen di bàyyi ñu delluwaat ci seeni kër ci fàttali sëriñ daara boobu ñu ngi ko jàpp ci boole buñ ko boole woon ci ni mu doon doxalee ak taalibe yi ci yu kokki daal di wàcc ca daara ja daal di fay fekk ay nongo daara yu ñu jéng tax ñu teg ko loxo ndongo daara yooyu tolloon nañ ci juróom seeni at toll ci diggante juróom ba juróom-ñetti at ca noonu ci lañ ko téye boole ko itam ak ay way jur ndongo daara yooyu ndax dañoo jàpp ne ñoom ñoo joxe ndigal ngir sëriñ daara boobu mën a jëng doom yu bu ñenn ñi jàppee ne jéng googu du yoon kën ñi koy def dañ leen a war a jàpp teg leen ci yoon ñeneen ñi jàpp ne lu am solo la ndax dina tax ñu bëri jóge ci të gi ñu të nekk ay uh, nitu diine am sax ñenn ñuy dem bay wax naan yoon dafa war a génne loxoom ci njàngum alquran ji coow li bari na ñu ngi xool ba xam fan la wànnent di mujjee ki gëtëm lu ci mënti am dinañ ci ñëwaat ak yéen ci ay xibaar yu wér te wóor jërë ngeen jëf xale bu ñu war a jubanti danañ la jubanti ku ñu war a yor danañ la yar waaw réew mi dëkk bi amul may jigéen ñi ñu taxawoon amul yoon am na tusi yoon may leen ay at yi góor ñi ñu autorisé leen ñuy sëy ci seen biir jigéen ñi ñu autorisé leen ñuy sëy ci seen biir sëriñu daara yi nous ils sont dans dans leur droit dañu am droit wu toog jàngal alxuraan bëgg doomam yaru bëgg doomam jàng am na sañ-sañu kii jëng maam xam nga lu tax muy jëng ñoom ñi ngi di dugal ci ñi ngi di dugal ci biir maam sëñ bi kaso bi ñi ngi mënoote ci biir kaso lan moo tax lan moo tax ñu mënoote dugal leen dañoo bëgg ñu jub ñun ñu tax ñu ñun duñu maam jubbanti ñu dañuy jubante te ñun naan sëñ bi ci noonu lañ mën a jubante te danañ ci ci baax ci nii mbaa ci naana ba ñu ñu ci dara. waaye waaye waaye li nekk ci ñoom tamit xam ñu ci biir ndax loolu tamit nan ci bàyyi xel. xoolal xaj ci biir ñàkk xaj ci biir amuñ solo sax amuñu xaj ci biir amuñ solo sax. asalaamaaleykum wa rahmatulah. sëñ bi maa ngi tribunal bi les journalistes pardon damay wax ñun ji man maay day yi xaadim xam dama ni lu nu ànd ci nekk am na ko suñu bakkan bi lañ ci am problème bi mooy dama lay wax tuuti sëñ xoolal xam nga ñun dañoo toog ànd ak yar ak di di wax ak mbooloo man suba léegi xam nga man maa la wax li ma la wax. déglu ma lu ma la wax ak maa ngi lay déglu léegi ëpp na ëpp na ëpp na weeru koor wee jàll la ma sëñ Moussa wax ci gémmiñam maa képp daje bii mu bëgg a def li tax tey jii mu renforcer ko ba ne tey lii information yëpp jot nañ ko mu leer mais li may wax mooy gars yi defuñu yëf yi rek la dafa li ma lay wax mooy du loolu waaw déglu naa ko dama koy déglu yow mi dama lay leeral xam nga ñun ñoo fi jiitu dama lay déglu dama lay déglu yow li may sàkk mooy bu ñu wàcc bu ñu parce que ñun dañoo toog ànd ak ñu xëy indi ñu ay éléments mel ni kuy xupp nit ñi ko xëbal. ñun bu ñuy dee bu ñu wàcc. bu leen wàcc. ay magum jom ngeen def ñu leen jooyloo. ay nit ñu dem yoonam. ñun ñoo bokk mission bu ñu def gisoo ba léegi. mais nee nañ déglu kon ñu ne nañ déglu rek. waaw ah, ñu déglu kon sëñ bi joxe na ndigalu taw. sëñ bi joxe na ndigalu taw man dal rek.

jërëjëf mbokk yi euh, euh, gis nga tey ñi ngi fii ci nga xam ne maanaam moom mooy ci euh, tribunal bu Louga li nga xam ne maanaam moom moo xewle di alquranul karim te daaray alquran ku ko wax wax réew te wax Sénégal wax dëgg wax adduna bi yëpp tey nag dañu mobiliser wu ñëw fi nga xam ne moom mooy ci tribunal fekk si sunu nawle fekk si sunu di Serigne Khadim Gueye ci diwaanu Njaañ dëgg yàlla di ko wattu alquran di ko mokkal alquran di ko xam ne ku bind ay kaamil alquran jaar foo xam ne ci mébétu alquran la jaar ba egsi fii tey tey lii nga xam ni moom dañ ko toppee indi ko fii wax dëgg yàlla euh, réew mi yëpp naqarlu ko Sénégal gi yëpp naqarlu ko moo taxit euh, Louga ak li ko wër ñëpp génn nañ ñëw taxaw buntu tribunal ngir fekk si li nga xam ni moom mooy atte bi nga xam ne moom lañ ko bëgg a atte ak li nga xam ne moom lañ ko fas yéene àndal di tuuma bi nga xam teg na ko ci kawam moo tax Louga loo gi yëpp Sénégal gépp àndandoo ci taxaw tey xar suñu tànk tubay dooleel alquran waaye itam duñ ci def lenn lu dul euh, jël ci ay kaddu kilifa sëriñ Mouhamadul Muntaqa xalifatul am wax dëgg yàlla tarixatul muridiya joxe ndigal li nga xam ni moom la joxe tey ñu nañu xaar lépp loo xam ni maanaam yoon teg na ko bu boobaa mor cee jot ay matuwaay moo tax taalibe yi ànd ak dal ànd ak tey daal di def li nga xam ne nag moom mooy ay salatu a nabi def ay wàcce ay jukki ci alquranul karim def tamit li nga xam ne moom mooy salatu ala nabi daal di teewul nga xam ni moom la euh, procureur di wax waaye lu mu ci man di wax loolu lañ ci ànd baax tey nag maa ngi ànd ak ki nga xam ne mooy sama papa jógee diwaanu Njaañ papa tey lan ngay wax ci tuuma ji nga xam ne teg nañ ko ci kaw euh, alquran tey teg ko ci kaw suñu xaarim teg ko tamit ci kaw euh, dëkku Njaañ suñu xaarim daal li ñu xam ci moom mm-hmm. yar ak teggin jàng ak jàngale ak bay mm-hmm. nekk ab taaliba bu mat sëkk mm-hmm. ñun ñii suñu suñuy dooma nga fa mu di leen jàngal di leen yar ci diine waaw ñoom nag bu ñu amee lu ñuy wax am na ñu mën a wax bu ñu amee ku ñu bëgg a téye am na ñu mën a téye ndax ndax ñu bot ñaa ngi ci réew mi kaat kaat yaa ngi fi dina ko alal réew mi góor jigéen yaa ngi fi ah jigéen ñu bon ñi nga xam ñi ngi jaay seen bopp ñu ngi fi loolee gouvernement bi war na cee mën a wax te waxu ji kon ki nga xamante ne daa yor ay ay dongaam te noonu noo ko jox suñuy doom mu di leen jàngal xiifalu leen maralu leen laaju ñu ñaari dërëm di yar suñu doom ci kaw diine ma ni li mu bëgg moom lañu bëgg li ñu bañ moom la ñuy bañ dañoo nekk ci baatum ndigal waaye bu fekkoon nekkuñu woon ci baatum ndigal na la leer ni tribunal bi kon tey daan ko dana génn wala ñu toj ko barke sëñ Bachir laa wax man maa wax loolu ah, jërëjëf <laughs> jërëjëf loolu kàddu la goo xam ne maanaam mun cee ñàkk ndax xol yëpp tooy na te xol yépp féex na Euh, mbokki diaspora bi tey gis ngeen li nga xam ni moom moo xew ci Louga waaye suñu borom dafa def koo xam ni kum na euh, boobu nag tey moom la ñuy wane fii tey ci jëmmi Serigne Khadim waaye itam diwaanu Louga gépp moo am doole kon dañ leen di bàyyi rek daal defaat ngeen commentaire ngeen gis li nga xam ne moom la bintu tribunal bi woote euh, taxaw daal di défendre li nga xam ne moom mooy taalibé yi waaye dem ànd ak taalibé yi ci boppam sax ñoom ñoo wane njëkkee wane sécurité ci li nga xam ne moom mooy ndigalu Cheikh Mamadou Mountakha moo tax tey wax dëgg yàlla duñ def lenn lenn lu dul xaar ndigal nañu ànd ak yéen def commentaire laata ñuy àndaat keneen ci kàddu gi sang bi mën nga wax tey ci li nga xam ne moom mooy xew-xewu sëriñ xaadim xew-xewu alquran mm. te alquran am li nga xam ni maanaam euh, ba toll fii tey mm. tey ñu bëgg ci teg benn tuuma lan nga ci mën a leeral askan bi tuuma ji moom prof bi njëkk rek ne wérut mm-hmm. mooy lii gannaaw bu ma leen nuyoo yéen waa sit bi mm-hmm. euh, ñaanal suñu kilifa gi di Cheikh suñu borom yàggal ko fi te wéral ko ci taxawaay yëpp ak fi ñu toll ak yi ñëw ci suñu kanam mm-hmm. di ñaan borom bi gën koo kàttanal gën koo dëgëral di leen ñaanal yéen it ci seen information yu am solo yi ngeen di yëngu bëgg alxuraan ak yittewoo ko moo leen tax a jóg ndax mënoon ngeen a nekk ci yeneen i xew-xew ndax jamono yi mi nga am yeneen xew-xew li nga xam ne la ñu teg suñ xaadim nag njëkkul ci suñ xaadim fa ñuy wax xaaru ira ci xuntuma ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam ca la tàmbalee woon ba léegi nga xam ne fa mu nekkoon doon jàngale alxuraan saa bu nit mosaa jéggi fekk ko ci xuntuma dañ koy bokk boo génnee ci société booleetuñ ko ci bi Sëriñ Tuubaa ñëwee jël goppam yeesal toolub islam bi ne lil Moustapha na waytu waytumaa yu jaddidu sunnatahul xaraa wa inni ahmadu taxaw di défendre diine lañ ko teg ay tuumat jëlee ko fi yóbbu ko juróom-ñetti at yu manqué tuuti muy jaay bakkanam ci àll bi ngir taxawal diine kon buñ jëlee sëñ xaadim mi tuddee ko sëriñ Touba ñu ñëwaat jël ko dugal ko ci alxuraan dañoo delloo mbàtt ma ca ndaala rek te sëñ xaadim lii ñu ko teg nii du tax mu rikkile ñun ñu ngi ci gannaawam tey ak suba guddeeg bëccëg duñ dellu gannaaw ba ilaa yoomi naa su ko defee nag li nga xam ne la ñuy lancé mbokki taalibe yëpp ñu bàyyi ko xel ñun waa daara liñ ñuy woo duñ ñu ci mos a gis muy weel muy muy muy euh, débordé violation bi ñuy woo duñ ñu ci mos a fekk yar lañ ñu xamee ndax sëñ Abdoulaye Mbacke danaa wax ne buñ la daa yar boo dajee ku ñu yarut moo tax ndax bu ñu doon yar nit ngir nga dajeeg sa morom wan ko ñàkk yar taxul ñuy wax bi ñu fi ñëwee huit lañu lañ fi agsi liñ ñu teg comme sart yëpp dañ caa jaar ñu ne ñu dem leen ngeen rang ñu dem def ko loolu suñu àq la nangul nañ leen comme dañ leen fee teg pour ñuy organiser mais dañ ñoo beneen àq ndax dañ ñoo wax ne alxuraan da koy dugal seen poche mbaa dugal ko seen oto di ñu laaj ay carte d'identité te yàgg nañoo teew ci audience yu mel nii mosuñu ñoo laaj loolu yëpp mais lépp ñun ñu bëgg jàmm ngir wane yar bi ñu def ci ñun tax ñu absate leen ñu toog indil ñu ay renfort mais ñun ay criminel lañ yoo xamante ni dañuy wane loo xam ne bokkut ak li nekk loolu yëpp ay ndëgg sarax yu ñuy lalal la pour bëgg ñu wane loo xamante ni tuuma ji ñuy teg ci kaw daara mën a dëgg waaye ba àddinay tukki duñ ko gis waaw lii Serigne Touba nekkoon yonent bi nekkoon ci ñu baax ñu nekk ci fa la nekk ba àddinay tukki bu àddina yëpp wanoon gannaaw nekk ci leneen yi du tax ñu des ci te bada al islaamu xariban wa sa yahudu xariban fa tuuba lil xuraba diine ba mu tàmbalee daa tumuranke te buñ ne diine mooy daara mooy defal nit tax ñu wax nit ku diine kon day continuer di tumuranke waaye texe ñeel la ñu nekk tumuranke kon ñi ci nekk ñëpp message bi may lancé nañu kanam la comme dañoo am kilifa nag duñ ko jiitu nañu ànd ak yar lii moom suñu àq la moo ñu ñëw teew dooleel ki fi nekk waaye la ñuy lijjanti kilifa ya war koo wax ñun buñ salbaañe dara waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. waaw jërëjëf mu ngoog wax dëgg yàlla témoignage bi am na solo ta leer na nañ euh, lii rek moo ko def te nag euh, li dox ci biir moom euh, mu ne koo xam waaye tant que li nga xam ni maanaam moom mooy yoon defu ko duñ ci mën a ànd duñ ci mën a commentaire waaye tam nekk na loo xam ne tamit askan bi yëpp ñu ngi koy ñaawlu te di ko euh, jooy te di ko naqarlu bu baax baax moo tax tey buntu tribunal bi ku ne mi ngi ànd ak xol bu tooy ñii ngi ànd ak xet-xet ñii di ànd ak leneen waaye kaddu gi fenn rek lay bawoo laata bañ jëlee sunu ndigal a Cheikh Mamadou Mountakha waa tribunal rek la ñuy xaar ñu indi loolu waaye tam ñëpp a ngi ci képp koo wax rek benn lay wax ndax dañuy défendre l'islam nekk na nag dañu bëgg xam ba xam dañuy euh, aar taalibe yi wala tamit dañuy indi kaaraange wala tamit dañoo bëgg a toxal nga xam ni maam moom mooy euh, situation yi nga xam ne moom la donga daar yi di doxe loolu nag ci kanam tuuti lañ koy xam laata bi ñu joxe atte boobu dañ di wéy di ànd ak yéen di def programme def documentaire ñu xoolaat ambiance bi am buntu euh, tribunal bu Louga ñu dox muy délégation bi dox ci li nga xam ne sëriñu daara yi euh, teew ko tey ngir ànd waxtaan suqali tamit euh, nan lañ mën a def ba taalibe yi dal nan lañ mën a def ba ànd ak moom suñu baay njaga euh, suñu baay ay ko fa nga xam ni moom mooy njaañu njaga Fatim bokk ci communicateur traditionnel yi wax dëgg yàlla mu ngoog waa njaañ gépp